sant seen teewaay di sant mbokk yi bàyyi seen i soxla aussi ngir liggéey bi ñu amal tey réew mi fan yii ñu weesu fan yii ñu jógee am na ay xew-xew yu doy waar yu jéggi dayoo yu ñaaw yu fi xew ba ay nit ñàkk ci seen bakkan ba alal askan wi muy alal nguur alal mbooloo ndax la alal la. amati ay yàqu-yàqu yu bare bare ay yàqu-yàqu yu kenn mënut a task force républicaine kuréel bi jàkkaarloo na ngeen bi jàkkaarloo ngeen tëj ba xamal ngeen waxtaan ñu ngi jaale réewu Sénégal ci ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci xew-xew yooyu di ñaan yàlla xaar ci ab jana fi daw si di ñaan aussi ñi ci jëlee ay gaañu gaañu yàlla wëral si di cër ci yëkkati leen ba ñu mën a doon seen soxla mu gën a gaaw. task force lu muy kër ñu ngi ñaawlu ko fi ñaawlu mën a yem li nga xam ne xew na ci bi te dara la lu ko lu ndogalu yoon boo xam ne dafa boole ñaari doomu réew bi muy Adji Raby Sarr ak politicien bi ñu dubbee Ousmane Sonko bi xew-xew yi yoon bi amee te ñoom ñu waxoon nekk te yoon bi mos a dogal yàkkamtoon yëf am te bi mu amee ñëwuñu malgré seen i awukaay yu dinañ jël dogal boo xam yàgg nañ ko xalaat seen i bopp ñu fas yéene ko jëfee mooy naataagal mooy daaneel réew mi daaneel koom-koom bi yàq lépp luy fi alalu nit ndax alalu nguur gi alalu nit ñi la nit Sénégalais yëpp waa réew mi ngi ñaaw taxawaay bi nga xam ne ñenn ci kujje gi ak ñenn ci ñi ñuy wax société civile ñu war a tëdd yaxaanaay ba jamono ji ñuy wax ak yéen. ñaawtuwuñu xew-xew yu ñaaw yu bon yooyu nga xam ne Ousmane Sonko bi fi am ñi mu àndal ñoom ñoo ko amal ci réew bi gannaaw ba dogal yoon jibee ci ay mbir yoo xam ne moom moo ko teg boppam jotewul ak borom réew bi ci xew-xew boobu ñu ngi rafetlu ñun waa task force républicaine dogal bi nga xam ne dafa lalu ci dëgg bi nga xam ne yoonu réew bi wane encore moom seen bopp jëlaat nañ ko te biñ ko jëlee ñu sukkandiku ci ay jëf yoo xam ne ñu teg seen i gën la te ay preuve yu wér aussi di ay firnde yu lal ko muy euh, dogal yoo muy dogal boo xam ne prohibition à la jeunesse la muy wane que siif bi am na te raw siif bi am na ay yoon yoon bari am na te fi mu waree waru foo amee ni mu amee waru foo amee donc loolu encore une fois task force de ñu ngi ñaaw dogal boobu ñu dogal boobu. ñu ngi rafetlu dogal boobu nga xam ne justice jël na ko ci coow loolu nga xam ne Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñu def parti Pastef ñoom ñoo ko set task force républicaine bi delloo ñu kër ñu kër mucc ayib ñoomu réew mi di jaajëfal bu baax a baax way takk dañi nga xam ne dañu wane professionnalisme wane posture républicaine ci liggéey bi nga xam ne def nañu ko ba moytu ñu ci ñett moytu bari ñàkk seen bakkan te dala war a leen ci yoon ba ñëpp mën a fi liggéey li xew ni mu xewee ak ni ko xalaat ak ni ko jëfee ci terrain ak wax bi ci jib yëpp ak méthode ñu utilisé ak cible ak lépp leen taxoon jóg ki ku ko gis xam ne lii lu ñaaw la te nit ku nekk daan war a ñaaw sant yàlla bi nga xam ne réew mi teel nañu xam loolu ba moytu ko ba fexe ba du faagaagal koom réew mi. ba fexe bu faagaat ak république ak démocratie réew mi li am solo te ñëpp war ko jàpp mooy lii nga xam moo leen tax a jóg mooy salfaañe suñu unité mooy daaneel koom réew mi mooy fexe ba tas réew mi ni xaajaloo ci ay xeet ay waaso loolu ñi ko war a ñaawlu te ñoom loolu moo leen taxoon jóg du leneen du loolu bu liberté d'expression bu leneen suñu réew ku ko xam xam ko ci démocratie àdduna bi yëpp rafetlu ko te li gën a tax ñu wax ko mooy communauté internationale bi yëpp wax li nga xam ne yëkkati nañ ko jëmal ko ci li xew Sénégal ñoom ñëpp muy États-Unis muy Canada muy CEDEAO muy francophonie ñoom ñi ci wax yëpp dañu ñaaw bu li nga xam ne xew na ci réew mi te kenn ci kujje gi def ko fi te dara dalu ko lu dul dogalu yoon boo xam ne coow li mu am yëpp moom moo ko teg boppam leneen li ci ko yokk mooy njiitu réew bi comme ni ma koy faral di defe ci réew moo xam réewu jàmm la réew waxtaan woote na ay dialogue yu bari ci ay pàcc yu bari ci réew bi lu mel ni wàllu décentralisation lu mel ni wàllu foncier lu mel ni wàllu enseignement supérieur ak toile la décentralisation gaz ak pétrole ak yeneen te loolu am ay ak yu bari yu jur ñu ngi wax ñëpp ne waxtaan foofu rek la mën a amee amul feneen fu waxtaan mën a amee ñu rafetlu li nga xamante ne ñu ëpp ci réew mi nangu nañ dem waxtaan ak jiitu réew te dogal ñu jëlee foofu gëm nañ ne dogal yi gën a dooleel suñu démocratie la dogal yi gën a dooleel encore une fois suñu république la ak suñu état de droit waa tas bu force républicaine ñaan ñi nga xam ne dañoo réer ñi nga xam ne réew mi jëm kanam tax leen jóg ñi nga xam ne état de droit démocratie seen bakkan seen nafsu seen intérêt personnel kese moo leen tax a jóg yàqu koom-koomu réew mi dal ci Sénégal dal ci ndoxu réew mi dal ci commerce yi dal ci banque yi dal ci transport bi loolu moo leen tax a jóg ñu leen di wax ne nañu bàyyi seen xalaat ak seen jëf yu bon yooyu te dugg ci lépp lu mun a jëmale réew mi kanam task force républicaine mu ngi tàllal loxo doomu réew mi ñu jóg doon benn bokk ndey ak baay jàppale waay takk der seen liggéey bu ay bi nga xam ne ñu koy amal taxaw temm aussi ngir ñu jëmale réew mi kanam jëmale kooku réew mi kanam te jàppale président mi nga xam ne mu def ko réew mi kenn du ko dàqal ñu leen di gërëm leen sant wasalaam jëfandikoo seen Camara yàlla ngeen jëfandikoo seen Camara kenn amul seen pay yàlla ngeen jëf. yërëm na ngeen sant na ngeen ba ci kanam yàlla yàlla ngeen jëf. ñu ngi yërëm ñu ngi sant di taskatu xabaar yi aussi may leen s'il vous plaît une contribution may leen une contribution s'il vous plaît may leen may leen une contribution may leen waaw jërë ngeen jëf may leen di yàlla jërë ngeen jëf. voilà loolu nag la dañuy gën a ko suuf parce que xabaar di leen sant leen gërëm di rafetlu suñu présentation laaj ci jiitu El Hadj Maguette Thioune moo ko muy wàllu jàmm ñu ngi ciy dox wala ñu wax may fàttali ne ñun yàlla ak sénégalais ñoo ñu dëkk réew loolu la ñu programme leen wan mu doy ñu ciy baax a baax bi defee réew mi ak léegi tënkuñu ko ñu fii amal liggéey bu am solo liggéey bu mucc ci secteur yëpp dans tous les secteurs la vie socio-économique leneen li am solo mooy paramètre démocratie résultat élection buy nekk liggéey nguur gi liggéey kujje gi def liggéey mais dañuy war a waxtaan ay yoon yu bari wax naa ko sànq sama bopp te waxtaan mooy njiitu réew mi njiitu jàmm la nit ku am yar ak tekki Sénégal réew jàmm la réew waxtaan moo tax Sénégal wóoru nañu élection yi dem yëpp yàlla may nañu ci ndam ci gërëm Sénégal yi su dee peuple su wala Sénégal waaye gannaaw loolu woote nañ waxtaan saa su nekk ay waxtaan yu bari sous forme de dialogue national sous forme de dialogue politique waxtaan ci wàllu foncier waxtaan ci ñaar bu kawe bi waxtaan ci wàllu gox gox gox yeeg gox goxaat bi waxtaan ci wàllu décentralisation waxtaan ci wàllu gaz ak pétrole waxtaan ci wàllu fonction publique donc mun naa ne gannaaw ba ñu xale ci suñu programme loolu lañ liggéey mais terewul ñu waxtaan waxtaan boo xam ne aussi woote nañ ko rek bari ba ñu tuddee ñu am ci ay prix au niveau international waxtaan boobu aussi am lu bari mu jur ñu mel ni euh, élection locale yi territoriale yi composition de majorité ak proportionnelle lu mel ni parrainage bi nga xam ne élection yi passé dañu ko wàññi élection yi mujj dañu ko dindi ba mu set lu mel ni élection bi maire au direct kon waxtaan bi am na lu bari lu jur te terewul assemblée dañu fa bëgg ñu koy am terewul aussi ñu lañ fal terewul aussi ñu joxe ci xam yëpp yàlla may ñu dara donc ñun jàmm kese moo ñu tax a jóg ci la ñuy dox loolu la ñuy wax te loolu la ñuy liggéey chaque Mamadou lii moo ko laajte je pense que ñaari question yi mel ni réponse la plate kan waxul candidature candidature candidature président Macky Sall à l' élection de 2024 encore une fois ñun lu ñu wax lu leer moom mooy candidature boo xam ne yoon daf ci ànd parce que constitution bi ñu wax c' li mu wax ci article 27 c' est clair jarul ci jaaraat ñëpp xam nañ condition yi nga xam ne boobu réew war na ko dajale aussi pour na bokk ci ku nekk jiite réew mi aussi xam nañ ko daa daan maanaam baaxul askan je pense da ngay am fanweer ak juróom juróom tubaab bi ko laaj di di ko wax yor li la may nga jël ko euh, jot say droit si bokk kii bokk ak ci bokk benn la boo xam-xam ak jëm ci loolu moom kese doyloo ko mooy conseil constitutionnel li tax ma gën ko wax aussi mooy ñun 2012 bi conseil constitutionnel da leen dogal logique pour logique cohérence pour cohérence mais président Abdoulaye Wade dafay bokk ñun kese loolu nag jógee place de l'Obélisque wër Sénégal wala àddina def quatre-vingt-dix mille kilomètres déglu ñëpp wan leen suñu projet gannaaw ba ngeen dégloo xam seen i soxla ak seen i yitte ak seen i jafe-jafe ñu ànd ci ak ñun donc candidature boobu yoon na ci ànd. bu fekkee dañu woote jurisprudence 2012 ak 2016 candidature boobu ñoo ko bëgg ndax contexte jafe-jafe bi am ci àddina gannaaw Covid bi gannaaw guerre bi am diggante Russie ak Ukraine ak gannaaw li xew ci wàllu sécurité wàllu kaaraange parce que balaa ngaa ne am nefa sooy wax développement ak émergence day fekk jàmm am day fekk sécurité am li xew ci sous bi mooy le G5 Sahel bu yooyu ñëpp xam nañ ko li xew ci réew yi am doole ñëpp xam nañ ko li xew ci wàllu terrorisme ci àddina da nga xam ne réew yi am doole yi sax bokk nañ ci te yàlla suturaanu ci ba tey xam ngeen ko donc ci wàllu sécurité ci wàllu dynamique d'émergence bi réew mi toll tey ci wàllu découverte gazière et pétrole nga xam ne yàlla daf na ko di gis dëkk mu am du noonu bénédiction malédiction lay doon donc c'est une candidature légale légitime réglée par la question de la jurisprudence. C'est une candidature qui s'impose le contexte sécuritaire régional et international. C'est une candidature qui nécessaire avec la dynamique d'émergence sur laquelle notre pays se trouve. C'est très fortement et vivement avec le contexte de découverte gazière et pétrolière. Donc l'union ko bëgg te yoon da ci donc réew moo xam ne réewu état de droit la te gëm nañ ne moom moo ci réew ci jaar-jaaram ci expérience ci xam-xamam ak ci fi mu dëkk réew mi ak perspective yi nga xam ne am na ci beneen laaj bi mu ngi euh, Ibrahima Kama ko laaj ci wàllu ay vidéo yuy ba ci seen i confrères ci li am solo ñaar ñaari bi jiitu mooy ñun. ku jege njiit yi nekk ku jege ku ci jóg da ngay ànd ak ay nit ñu tuddee ay ner mooy nit ñooñu nga xam ne ñoom ñu aar seen ñun soxlawuñu ner xamuñu ner bi recruteur bi ner man ci wàllu service laa nekk xaw ma ner bi gisuma fi ko recruter ci bokk te sama baat ci kaw te mun naa indi leneen lu lii na ma ko gis ngeen militant affaire yi di tàccu ci ginnaaw ñoom ñoo ànd ak président gëm ko ak sénégalais yi ay militant la ñu yor yoruñu ay nervi ay volontaire la ñu yor yoruñu ay nervi xamuñu nervi te dañu jox loolu ñu cër parce que am na ñoo xam ne dañu ay force de sécurité mais dañoo jàng sécurité am ci xam-xam donc nañu bàyyi benn compte bi ak yenn stigmatisation ñoom ñoo xam nervi ñoom ñoo koy utiliser ñoom ñooy ànd ak ñoom ñoo leen di leneen li bu fekkee dañu wax dëgg rek yéen ñëpp xam ngeen ne depuis ñaari at depuis ñaari at ay këru ay kilifa yu bokk ci nguur bi rek la ñu attaqué muy Farba Ngom muy Matar Ba muy Latif Coulibaly muy Serigne Mbaye Thiam muy Sèye Mansour donc loolu ku jëkki ñoom ñoo ko def te yéen ñëpp ngeen seen i ñuy attaqué ay kër ay moomeel ay woto yoo xam ne ñu féete ci ñoo ko def te fayewuñu dàppante bi ak ñoom jaay leen dool dañu delloo lépp ci yox yàlla ak sénégalais ñu wóoru dëkk ñu réew donc bu dee violence ci dëkk bi banditisme ci dëkk bi def yàmmaa tey ak lu la neex ak salfaañ institution yi manque respect kilifa yëpp ci pàcc yëpp muy kilifa diine yi ñu di attaqué xam ngeen leen institution de la république ñu leen di attaqué muy justice muy force de défense et de sécurité yéen xam ngeen leen ku bëgg procès yàkkamti su procès amee da nga war a ñëw waruloo daw mais procès amee nga làqatu procès bu jeexee nga jóg taxaw woo xale yi jiital leen dafa lay dugg ci di leen waaw loolu xam ngeen ko donc loolu bëggoon naa ci bu baax a baax ñun ay volontaires la ñu ak ay

parce que bu ñu nekkoon ñu fàttali ñu liggéey bañ a woote waxtaan mais woote nañ waxtaan lu ma fukki yoon woote nañ waxtaan ci pàcc ci réew mi woote nañ waxtaan boo xam ne ñoom ñoom nañ bokk ci te waxtaan boobu li mu bari na wax naa leen ko ci wàllu composition liste élection territoriale bi ci wàllu élection maire bi de façon directe ci wàllu aussi parrainage bi nga xam ne dañu ko wàññi parrainage bi nga xam ne dañu ko annulé leneen li ñun ay républicain la alliance pour la république lañu tudd ci la ñu bokk ci la ñu toog président Macky ay légaliste lañu. calendrier républicain bi ñoom ñëpp loolu mooy seen revendication ñun ñoo ñu mun gën a te ci loolu lañ ànd. élection présidentielle bi 2024 lay am dégg ñu rapport xamuñu rapport bokkaguñu ci rapport waxtaanaguñu ci président Macky Sall mooy koy yàlla di dimbalee nit ñi di jàppale lu ñu ci jëlee ñu kontaan incha allah bu soobee leneen li mooy le silence des leaders barki def rek def nañ conférence de presse du ma dellu si ci ñi wax xam ngeen leen ñoom ñëpp def nañ conférence ni nañ dañuy marche par A ou B yoon ànd ci ak yoon ñàkk ci ànd comme toujours et comme d'habitude donc leaders Yewwi mosuñu noppi ñu ngi dëkk bi di yàq ñu ngi dëkk bi di yàq alal nit ñi ngi ci dëkk bi manqué respect kilifa diine yi ñu ngi dëkk yi bañ a wormal suñu institution ñu ngi dëkk bi di ci àttekat yi ñu ngi ci dëkk bi di daal ci ñëpp ñëpp tekki seen i gën donc képp koo xam ne réew mi moo la ñor képp koo xam ne koom-koom ak jàmm ak réew mi jëm kanam moo la tax a jóg képp koo xam ne démocratie république ak état de droit moo la ñor ak jàmm da nga war a ñor dénoncer li nga xam ne mooy xew ci réew mi tey parce que dafa am ñu fal ñu exercer maanaam légalement am ñoo xam ne ñu jóg pour yàq ngir seen intérêt personnel jot ci réew amul programme bu ñu ma toog ak dal ci kaw nit ñi ak dal ci institution yi. jërëjëf merci.